yees ñaar fukki waxtu ginnaaw tukkim nemmeeku bi nga xam ni ministre de l'intérieur Abdoulaye Félix Antoine Diome amal na ko fi ak Serigne Mbaye Thiam ministre bi nga xam ne jo yore na lépp lu jëm ci wàllu ndox ak assainissement waaye ministre dam Diop tamit bokkoon ci lenn ci askan wi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba wone nañu seen ñàkk békk wone nañ seen ñàkk békk ci ne tukkim nemmeeku boobu nga xam ni dañu jàppoon ne daf ko def ngir nemmeeku ñi nga xam ne ñooy sinistre yi maanaam ñi nga xam ne ñoo loru ci li nga xam ne moo di inondation taw yu bari yi nga xam ne wàcc na ci dëkk bu sell bi di Touba bassin bi nga xam ne moo nekk ci Touba Kër Niang ñi ci gën a loru bokk ci waa tubaa yoonu daaru ndaamaatu ak euh, fi nga xam ne moo di bassin Serigne Moutada ñu wone nag seen ñàkk mbégte ci yoo jëf jooju nga xam ne ci tànk yooyu nga xam ne ministre bi amal na ko fi li ko sabab nag moo di rek dañu wax ne daf leen a romb euh, tegul tànk ci fenn foo xam ne nii béréb la boo xam ne nii béréb bu inondé la wala ñi nga xam ne maanaam woy loru yi tegul tànkam ci fenn foo xam ne nii woy loru yi ña nga fa nekk waaye daf leen a romb dem ci fi nga xam ne moo di Daaru Rahmaan ak fi nga xam ne moo di euh, Pofti mu waral nag ñu wane seen ñàkk bégte ci bi mu leen rombee waral nag Timis TV Timisactu point net xëy ci suba si dem ngir seet askan wi ci ñàkk bégte googu nga xam ne wane woon nañu ko bi ñu leen ci cortège bi kàddu yi nga xam ne jot nañu ko ci euh, rotal ñii nag ay mécaniciens lañ yoo xam ne romb nañu leen ci béréb bi nga xam ne bokkoon ñaan ci ñi nga xam ne ñoo doon wane seen ñàkk mbégte démb ci cortège bi nga xam ne mooy cortège bi. ngi kii ñu ngi ko fekk ci pegg tali bi mu génn këram ngir ndox mu bari. yi ñu dégg ko suñu mikro Amary Ndim. fii mooy garage sëñ Mourtala Mbacke Ngiraneen quartier Cheikh Diop Bambey. mu waaw kër gii mooy sama kër. Ah, wër na ko de. wër na na ko kap. gis ak hmm. ah, si wun fi fee aw rek jàll. Hmm. waaw mu naqare noonu lool. te ndox miy jéggi ci kaw tëli bi moo ñu may ndox moo may Moustapha Ka ndox. moo may màggat si la mais ndox moo may amari mi ndox may garage Sëriñ Murtala bii ndox sama waa kër ñii actuellement nii génnuñu ci kaw lañ ne waa place bi liggéey fii liggéeyu ñu dara am nañ une semaine yoo xëy nii war a ñaari semaine yoo xëy nii seenu njaboot sax macha allah am na loo xam ne lépp ñu ko wax sonn nañ lool man li ma dund ren man mosuma ko dund ci Touba te lépp lu ñu ko teg mooy bassin bi bassin boo xëyee nii benn kilo la benn kilo la war a def nga def ci juróomi kilo pabax lay def day daal daanu nañ ñu jàppale ñun wa gara sëñ Mourtala wa Touba Mosquée bi waaw. mu melni ñom ñoom def nañ ci ay dige mais dige est-ce que dana dal xel. dige yoy man dalul sam xel ndax yàgg nañoo dige defuñu tous waaw yàgg nañoo dige defuñu tous abdoulat Ka warna dik dikk suñ koñ bi dox fi sol ay bot dox fi te defuko waaw te ñun sëñ bi leen gëm gëm ñu leen suñ sëñ bi sëñ bi nak li war na ko yëg ci ñun ñi ndax ñun buñ woté xel koom ñoy ñun gone yaay dem sëñ bi ñun pa sëñ bi. paa yi ñun duñ dem pas ñun it sëñ bi du dem ndax sëñ bi mooy dong yi dong yi mooy sëñ bi ku ko wax nag ñu ne da nga amul ta amoo ak fi am kër sëriñ si lañ dem fi mu ne nii ñi nga xëye nii nangam ak nangam te loolu kenn mënu koo wax dañoo bëgg ñu jàppale ñu te yàlla tax ñun xiifuñu maruñu ndox mii lañ bëgg mu deñ yalwaa ñun kenn ndox mi lañ bëgg mu deñ ndax ñoom euh, mën nañu wax ne seen jéego yooyu ndax capp euh, nga ne lu am njariñ la wala daal euh, parce que tamit ak siwun ci ñi nga xam ne ñoo indoon rek waaw ak siwun fi carrément mm. kon nag man ñun moom yëguñ suñu bopp mm. ñun ñun waa quartier Nguiranéne yëguñu suñu bopp ndax wiif lañ fi def waaw te réglé nag téeméeri oto ak juróom fukk oto bu ne def na gasoil te gasoil boobu dong jëriñ nañu ñun gasoil boobu ñu def noonu ci oto yi jëriñ nañu ñi ci àndandoo bépp jëriñu tous liy woo liy yoon mooy jëf wax fi dañ ko passé jëf lañ wax man da jëf la wax man amari Ndim waw man nak maangi jëf kuma ci fekk na sante yalla lool kuma ci fekkut ma xay lool la yalla dogal waw man nak maangi sante wa Italie bu baax ndax jappal nañ ma ok xewal ki nak bok ci ouvrier yi nga xamne dañuy yëngu ci walu garage mécanique tol yi ak euh, li nga xamne modi walu di auto euh, ñi nga xamne dañuy liggéey ci walu automobile muy euh, ay mécanicien ci la bokku mom tamit ñu fekk ko ci pegg tali bi ginnaaw bi nga xamne ndox mi genné na len seeni place man Mamadou Gueye la tudd Mamadou fii fi fan la fi fi ci Kër Ñang la mhm, ci Kër Ñang la bok waaw ci Kër Ñang la bok mu mel ni ndox mi dem jëm jëm marché Ngiraneen côté mhm, Ngiraneen waaw waaw man day dekkuma fi dama fi liggéey mhm. man sama kër ma ngi ca kanaalu ndox ba mais fi dama fi ñew di fi liggéey am fi place sans place ak ni fi fii ñëpp ñun ñii ñëpp ay place lañ yor ñi fi dëkk place yi liggéeykaay ay mécanicien soudeur tôlier lépp moo fi nekk mais ndox mi moo ñëw ba dugg fii ba mënatunoo liggéey daanaka depuis ba mu fi duggee ba léegi danoo toog di xoole garab gaa nga nee mooy sunu ban jaaxle bon ñu nag suñu problème mooy danoo dégg ministre da fii ñëw ñu kontaan ci trop wax dëgg yàlla sant ci parce que ministre lu toll ni ministre bu ñëw bu ñëwee jàpp nañ ne ñun suñu jàngoro dana faju bi mu ñëwee ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo ne ci ndox mi suñu place yi bi mu fi rombee taxawut sax taxawut xamut lu fi ne ndax wanu gisu ko man damaa jàpp ni su su suñu amee problème ba nga xamante ni ñun danoo inondé ba kenn mënta dem mënta dikk su ñëwee day def na mag Sall defoon atam daa wàcc dugg xuus ci ndox mi wane ne moom gis na inondation beeg lépp mais ñoom seeni oto lan fi romb daanaka guddi lan fi jaar xamuñu lu xew fii daaru raxmaan lan dem ak moto pompas bële te foofu amuñu inondation fii moo am problème ak ak ak ak ak euh, euh, yoonu daaru ñoo am problème parce que ndox mi li ko indi mooy kanaal bi fees na versé na yoon daaru yoon daaru nab doo la am at bu jot ndox mi da ko fay fekk nap bi dem taw bu njëkk ba ndox bi engagé fa deuxième taw bi ñëw mu rempli ko euh, canal bi ndox mi ëpp ko doole léegi nag mu retourné topp 30 bi ñëwaat fii versé Kër Niang loolu moo waral lii moo tax fii daal mi ngi nii léegi lu ngeen di wax ci ñëw ñëw ministre bi. non ñëw ministre am am na njariñ parce que lu toll ni ministre bu déparé jóg ànd ak gàngooram loolu fa mu jëm njariñ xalaat nañ ne dana am njariñ parce que bu woon am njariñ ñoom du déranger ju jóg. mais nag comme ak si wut ci ñi nga xam ne ñoo déggoo ma ni mais njariñ li dañ koo gisut. ndax dañ ko cee yaakaar mais gisuñu ko ci parce que bu buñ ko ci doon gis kon ñun depuis démb bi fi ministre bi ñëweek léegi dinañ gis benn réaction fii mais fii amul benn réaction fii li fi génn ci kër gis nga ñi ngi génne bagage yaa ngi nii li fi génn si ay kër kenn xa ay téeméeri téeméeri téeméeri kër lan na nañu jàpp ne état bi euh, dañoo xaalewul waa Touba ndax xañ na duñ fi gagné liñ ci def lii moo tax ñoom tamit ñu xaw di leen seetaan ci seen ay jafe non mais état bi état bi warul seetaan waa Touba même waa waa Touba sax bu ñu faral lu état bi sax état bi moom c'est pour tout le monde

waye nak moom mu yëkkati ay kaddu joytu waye joytul wa koñ bi nga xamne tamit ñu bari bari ci dëkkandoo yoyu ndox mi genn na leen seeni kër bañu genn dem luyé ji fenen fo xamne ni nii xañ na jegewul sax béréb yoyu té la ca mëna a tamit di ay lorangé muy ñu mëna jël manam sacc seen ay bagage yi nga xamne ne nañ ko ci seeni kër. Maguette ñi nga mécanicien camion la man. mooy fan euh, mu gis nañu ne lu gën a bari fii dafa dafa inondé place yu bari gis nañ oto yi ñu ngi ci biir ndox mi kër yi ñu ngi ci biir ndox mi gis nañu nag ay ministre yu fi ñëwoon démb ñetti ministre de la république mhm. ñu waxoon ne ndox mi moo leen tax a jóg mhm. waaye mel na ni askan yi ñu ci bari dañu ne dañ leen romb rek euh, ñëwuñu ci ñoom loolu yéen ñu ngeen ko dundee waaw ah, loolu dëgg la parce que man démb bi ma xëysee après ay boori deux heures ma gis ay ñuy ñuy wàcc fi ay beer rouge man a gars yi xanaa dañoo bëgg ndox nangu ndox bi ñu ma ministre bi moo fi ñëw gars yi na ah, kon njaxam ministre bi fiy ñëw ah, nañ toog xaar ko bu ñëwee ñu wax lu ñu naqari ñun fi lañ nekk fi lañ nekk ba 20 h après biñ déggé routière yi di yuuxu ñu na ah, gaay ministre ba nga ñew ñu ñëpp ñu jóg taxaw taxaw ci télé bi ne ministre bu ñëwé bu waccé fi ñu wax lu ñu nakaré mais yaakar ñun day wacc pour taxaw wax askan wi mais dafa jàll lool nak daf ñoo nakay trop parce que ñun buñ dëkkee ci dëkk bi nekkal suñ muntaka di liggéey ngir dëkk bi kon buñ amé jafé jafé ñom war ko ñu li gën rafet ñagam ñëw na fi dëkk bi ñu taxaw di xaar ah mun bu ñun bu wàccoon taxaw taxaw minute sax daan xam ne kii am na jox nañu ab cër yëg nañu mais defu ko te koñ bi ñun depuis ñun bañ lu mat semaine ngi ñoo xam ne liggéeyuñu suñ ñun li ñu liggéey moom waxatu mais waa koñ bi ci boppam jafe-jafe yi nekke xool nga mat laay yi ñun ñooy mobiliser dugg ci kër yi di ko seppil waa di ko sepp dindil borom kër yi di leen jàppale suñu xëyee si garab gi lañu yenn kon ñun bu ñu amee problème boobu ànd ak waa koñ bi am problème ministre bu jógee war naa mën a taxaw fii xool li ñu naqari mu lu mu ci man mu jàpp jàppale ñu ci mais defu ko fi lañ nekk ba 22 heures di ko xaar mais bi mu ñëwee daf ñoo romb jàll te vraiment lu ñu séntu wuñ ko woon loolu ñun séntu woon nañ ko ci leneen lu dul mu jàll parce que ndox mi daanaka ndox bi li mu doon dagg mooy central ndox mépp mi doon jóge ci biir marché Ocass ak canal bi fii la doon fii la doon jé jaar di jéggi dugg ci biir koñ bi loolu métti nañu trop na ñu jàpp ne ñoom daanaka wan ginnaaw gi leen askanu Touba wala ñi ëpp ci askanu Touba wan ginnaaw dafa tax ko ñuy teyanto ak wa Touba ba faalawuñ seen ay soxla faalawuñ seen jafé jafé ndax yow gisa nga do doodeet lool man doxal lool d'accord ma ci parce que bu fekke da nga nek njit njit bo ci nekké bu addu bépp joy sa tank tek suñu kaw da nga wara muñ parce que xamna ne yi la leen fi nekkal bul xol di la nit ki def parce que ya jité population bi te aduna bam sa so bo léegi nit nit doom adam boo gis dana am ñuko bëgg am ñuko bañ mais bul xol ci loolu population mo taxa a bul xol li la nit ñi def xol li nga war def yow nga def ko parce que lool moy intérêt bi bu xool li la doomu aadama yi def da xool li nga xam ne askan wi moom nga jiite nga nekkal leen fi da ngay xool li nga la war a defal yow nga def ko mais bul fayantoo parce que kilifa du fayantoo ki jiite doomu aadama yi jiite nit ñi doo fayantoo. léegi yan message nga leen di jox. non message mooy ñun ñu jàppale ñu ci koñ bi jàppale ñu ci pour ndox mi dem ba xam nga ay borom kër ñëw fi saa bu ñu xësee toog fi ba ngoon ñu ñibbi loolu it da day metti borom kër yi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ bi bàyyi seen kër yi dem it te nekkutuñu seen kër yi seen matériel bépp daanaka nit jël nañ ko ñun léeg-léeg da ngay dox ba jàgg borom kër ba nit ñëw na leen seen mat seen matériel bi ah, am na lu ñu for dugal ci kër gi ñu ne leen bàyyi leen ñu ko seen matériel bépp ba jàgg ñu ne sama kër am na sa jël na sama bagage yóbbu na ko te loolu dafa metti dafa metti lan ngeen doon xaar ci ban xeetu ndimbal moom ndimbal parce que ñun moom suñu métier la ñor si la ñuy tedd waaw koñ bi koñ bi koñ bi li ñu li ñu mën a dimbale di fexe ndox mi jóge fi bañ maa delluwaat seen kër yi. waxambaane wi moom tamit mu ngi jooytul boppam waaye di jooytul ki nga xam ne mooy patron am ki nga xam ni moo ko yore ci garage. suñu Saliou ngoom maanaam man de damaa nekk ndaw loo xamante ni ñoo nekk suñu patron ndox mi sonal ñu lool. ndox mi ndox mi sonal ñu. maanaam dafa jël seen garage. waaw dafa jël suñu garage nangu ko complet saa yi sax fukki dërëm sax jamono jii mënuñ ko am. fan seen garage moo nekk nii ñaari pono. garage sooy bu sàmm. Mm-hmm. léegi nag dañ ñaan. waa état bi ñëw dimbali ñu te yàlla tax waaw jotoon nañ fee jaar nag ñu leen di taaxeerlu mais dañoo ñëw romb ñu jàll ñu doon ñaan nag ñu ñëw dimbali ñu te yàlla tax loolu moo nekkoon. ndimbal euh, maanaam ndimbal li mooy ñëw fexe fexe fexe fexe noo xam ne ndox mi mën fee jóge wala lenn ñu ñu xool ay pàkk yu mool yoo xamante ni dinañu ko dinañu ko mën a aal ñëw fa suñuy suñuy bagage nekk fa liggéey. Mor Seck dellu si moom tamit. di eh, wax li nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ña ngi koy dund ci seen béréb boobu waaye dellu siwaat bu baax a baax ci eh, tukki bi nga xam ni ministre bi amal na ko ak li nga xam ne ñu bari ña ngi koy joxoñ ay baaraam ci di wax nii dañu merewaat Touba wala boog dañuy kayantoo ak waa Touba lii la ci xalaat. waaw Mor Seck laa man mécanicien laa. mécanicien. Mhm. Euh, léegi gis nañ ne seen béréb yi. Euh, Kër Niang yoonu Daaru. Mhm. Ndaamaatu ak dëkk quartier yu bari ci Touba dafa innové. waaw léegi nag gis nañu fi ay ndaw yoo xam ne. ci euh, mhm. nguur gi la ñu ñetti ministre. mu melni ni askan yi ñu ngi togon doon leen xaar ñi nga xamne dañu mm-hmm. inondé mm-hmm. waye dafa melni eh, dañu ñew rek rombu dem lolu yeen nu ngeen ko jangate wa ñun kay niñ ko jangate rek moy am ci luñu luñu metti lolu ak yaakar bu tass ndax biñ déggé ministre bi da fay ñew ñun ñëpp dañu mobilisé won taxaw euh, amon yaakar lool ci mom ndax gis nga fan yépp liggéey ndax ndox mi mo nangu place yi koñ beetim comme niko seigne sëñ mi waxe ñëpp genn ñu amoon yaakar ci mom lool nak ñëwoon taxaw ñëpp mobiliser wa place yépp ñëwoon genn ñew taxaw amoon yaakaar ni ministre bi danañu trouver solution mais ñu taxaw di ko xaar mu romb ñu jàll ñu am si yaakaar bu tas bu métti wax dëgg yàlla. loolu am na ñu jàpp ne euh, ñoom li ñu du gagné Touba dafa tax dafa tax ba maanaam ñuy def jëfu maanaam lu a niroog seyantoo wala seetaan askan yi daal loolu ndax gëm nga ne loolu la. ah non loolu bu fekkee loolu tamit loolu bu fekkee moom laa tamit nekkul lu war a am ndaxte wax dëgg yàlla daal Touba gi nekkul ni ñëpp leen bañ ñëpp nag ànduñu ñoom mais tamit ñëpp bañuñu leen te aussi tamit Touba dëkk la boo xamante ne bii booy xool euh, Sénégal. Euh, bu dakaar jàllee tubaa defe naa ne li ko fi ëpp population bëriwul euh, kon yaakaar naa ni ay citoyen la xam ne daal réew war nañ leen di bàyyi xel si lu bare bari daal waaw war nañ leen di bàyyi xel si lu bare bari te lu mu mën demee tamit état wu Sénégal ñoom ñoo jaboote ñëpp moom Macky Sall mooy kilifa ñëpp kon defe naa Sénégalais bu ñu amee problème warut a xool ñu ànd ak moom ak ñu àndut ñoom ñëpp dafa war a jaboote ñëpp rek euh, dimbali ñëpp wax dëgg yàlla daal suñu yaakaar tas na lool lool lool démb ñëpp mobilisé woon amoon yaakaar ne daal ministre bi dana taxaw wax ak ñoom bu ko defee ñu mën koo wax seen soxla Euh, ñu jàpp jàppale ñu si mais li ñu taxawoon daal noonu la ñu rombe dem. ndax jàpp nga ne tamit kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo leen nekkal ci dëkk mhm. wala ñi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bi. Mhm. Euh, tamit euh, amuñu ci responsabilité waruñu leen woon a woon fi nga xam ne tey war nañ faa dem leen ceeb ceeb lii a dañ leen war bàyyi ñoom a. waaw looloo itam dëgg la loolu responsabilité kilifa yi la moom kilifa yi itam seen responsabilité mi ngi fi ndax ñoom ñoo dëkk si dëkk bi ñoo xam dëkk bi te ñoom itam xam nañ li ñuy dund fii ak jafe-jafe yi ñu fi am yëpp xam nañ ko waaye itam taxawaay bañ si waroon taxaw des na ndax bu fekkoon tam tam ñoom fekkoon na avant Macky Sall di ñëw avant ministre bi di ñoom ñëwoon nañ fi seet ñu xam nañ nekk yëpp ministre bi ñëwee tam ñu mën a ñëw ñu expliqué ko suñuy suñuy problème def na lool moo waroon am mais moo amul loolu nga wax moom dëgg la ba amee loo ah, moo ñu gën a bàyyi xel askan wi rek xam ne askan wi ñoom ñoo leen fi ñoo nekk fii ñoo xam ne ñoom xamuñu lu du daan doole mënuñoo dem di jël yëfi jàmbur mënuñoo def leneen léegi fi ñuy daana doole dépp boobu ba léegi tey ndox mi jël ko saa bu ñu xëyee dajaloo toog fii tim war nañ leen bàyyi xel baax waa ji yi ñu fekk ko ci seen biir kër ginnaaw bi nga xam ne njaboot gi yépp roñ nañu seenu bagage ba dem làqu ji feneen ngir ndox mu bari moo xam ne ni dugg na ci seen biiri kër ba ci seen biir yi nekk. man moor Ndaw laa dëkk laa tudd. Mhm. maa ngi maa ngi dëkk fii ci Touba Ngiraane waaye nag quartier bi euh, maanaam mbedd mi moo ko séparé. fii ci quartier euh, quartier kër sëñ Murtala la <laughs> lii bokk ci Ngiraaneen. léegi gis nañu ay ñetti ministre de la république ñëw fi. ci hmm. njiitu euh, Félix Antoine Diome. Hmm. Hmm. Euh, ndax agsi nañu fi. ministre bi mu ñëwee dafa romb fii. ministre bi ñëw fii. dafa ñëw jàll Darou Rahman euh, jàll jàll pëf di wàññikuwaat wàññikuwaat dem monsieur le maire moo fi njëkk ñëw ak préfet biñ ñëwee ñoom mayuñu leen mayuñu nit ñi sax ñu toog wax ñu taxaw wax ak ñoom dëkk bi ak li fi génn ci ay kër. na juróomi téeméeri kër quartier bii laa wax de jëmmee ngiraa neen gii laa wax waxuma nag. ñi dëkk ay ndaamaatoog ñi dëkk kër baylaat ak ñi dëkk faneen waxuma ak wala wala ñu dëkk kër ñang jëmmi quartier bi dafa génn ci mën na juróomi téeméeri kër léegi jëf ji ministre bi def noonu euh, ndax jàpp nga ne moom lu mu tànnal boppam la wala ñi ko wa ñi dëkk ci dëkk bi muy ay kilifa moo xam kilifa diine wala kilifa ñi ngànk dëkk bi ci ndax ñoom ñoo ko informé wul mhm. wala ñoo ko jaarlawut fi mu war a jaar wala moom moo tànnal boppam def li mu bëgg déedéet loolu jàpp ma ni moom moo ko tànnal boppam ndax buy ñëw ci dëkk bi dëkk bu nekk bu fa ndawul njiitu réew def dem am na ñu muy jokkool ñooñu nag ñoo naan ko bul àgg bërëb sàngam bul dem bërëb sàngam li xew dëgg dëgg dëgg dëgg waxuñu ko ndax bu fekkee ministre bi dafay ñëw ngir saafara jafe-jafe yi waa Touba yaakaar naa waroon nañ ko wax ni ko boo accès ñaari puno diggante boobu ña fa génn ci nit kenn xamul nuñ tool na nga fa taxaw nga xool situation bi kon dama ragal ne dafa am ay nit ñu ni ko foofu bu fa taxaw jàllal. lan nga jàpp ne moo war a nekk intérêt ci loolu. loolu loolu loolu xëy na ñi nga xamante si ni ñoo ko koy def loo xëy na am na lu ñuy bañ. xëy na mën naa am dañuy bëgg bu ñu na mën naa am bu fekkee xaa président dafa génne xaalis ñu wan ni nit ñi looru ci ay nit tolluñ nangam nangam la nekk junniy borom kër buñ génnoon ñu ne ko ñett téeméeri borom kër ñoo génn wala ñett ñett téeméeri borom kër ndax loolu wàllum wàllum wàllum politique la daal wàllum politique loolu bëgguma cee dugg dëgg dëgg dëgg waaye man loolu rek laa ko jàpp loolu rafetlu wuñ ko te jëf ji wutoon demee noonu bu fekkee dafay ñëw ngir ñëw ci sëñ Muntaxa ngir saafara saafara jafe-jafe ñi nga xam ne dañoo loru jàpp naa ne fépp foo xam ne ay nit génn nañ fa war na taxaw xëy na bu fa taxawoon ndax man fekk na ma fi damaa xaar lu yàgg ñëwut ma dem ndax ñun dañoo génn xam nga kër gi kenn mënatu fee dëkk koñ bi ñëpp dañoo génn jël seeni bagage dem bu fi taxawoon dana fi fekk ay benn wala ñaari nit ñoo xam ci koñ bi lañ dëkk li fi am ak ñi fi génn ñëpp danañ danañ ko leeral mbir mi nu mu demee bu demee beneen quartier bu loru mu laaj doxal manam boba mom moy xamal bopam mbiri ni mu demee dootu sukkandikoo di ci nangami borom kër gén nañ wala nangami borom kër gén ndax su boba dana xamni ni fim taxaw fep xamna xamna situation ba nam demee su boba bu fekkee dañoo am safara suñu wara suñu wara suñu wara luñu wara safara dana xam na lañ koy safara man nak lima bëgg euh, ko baax euh, ko baax fi yoonu fi fi sonu ndox la mm-hmm. li indi jafé jafé moy canal bu mag ba mm-hmm. waxtu wu fessé kër ñang waxtu wu fessé nun mm-hmm. dañuy genn suñu kër fi lañuy genn génn. ne euh, tukkim nemeeku boobu ñoo ngi leen doon xaar ci digg bëccëg bi donte sax aksi nañu ndax bi nga xamni 14 h jot na muy waxtu julitis bar fi lañ ko defee waye bi ñuy aksi ci Touba Kër Niang fekk na bobu li desoon ci 19 h jot wul japp nañ ne sax soriwul danaka 19 h moins 4 lañu aksi ci fi nga xamne modi Touba Kër Niang manam ci lëndëm gi lañu dal di dem euh, dox. Euh, dem fi nga xamne modi daru Rahman ci bassin bi nek fofu waye dem ci fi nga xamne modi pof di nga xam ni daanaka bi ñuy dellu siwaat ci dëkk bu sell bi di Touba 21h jot na muy tukki nemmeeku boo xam ne ni nag eh, ay eh, tas na muy tukki boo xam ne ni nag tas na yaakaari askan wi ñu bëree bëri ci way loru yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bu sell bii di Touba ngir jàpp nañu ne bu dee ne ministre bi dafa jóg ngir eh, ñëw ak inonda dafa jóg ngir inondation bi waroon na mën a teg tànkam ci fi nga xam ne mooy béréb yi nga xam ne fi la woy loru yi nekk wala ba béréb yi nga xam ne waroon na mën teg tànkam ci fi nga xam ne ñoo gën a loru ci li nga xam ne moo di euh, mbënn mi wala bokk euh, taw yi nga xam ne wàcc na ci dëkk bu sell bi. ñii dañuy taxawaay yi dem rek ndox maa ngi fi ñu dem dara ndox mi de.